ñu dalal suñu gan élément Bart ah euh, pourquoi ñu lay woowee élément Bart. Euh, bu ko indi ñun dañu am suñu conviction ci xeexal Sénégal bi ñuy jug di wàcc euh, di xeexal Sénégal boobu nu yoon benn politicien waaye ci biir doxalin boobu lañu demee ba yàlla boole ñu xamante ak Barthélemy Diaz muy wut deuxième mandat suñu commune bu ñu dëkk Mermoz Sacré-Cœur ci lañ ñëw wax ak ñun convaincre ñu ci discours am ñu ànd ak moom wut deuxième mandat bi yàlla may ñu ndam. donc ci loolu la ñuy wéyee di dox may ànd ak moom tamit ci ay combat yu baree bari ba am samay xarit nag yu ne yoraal sa waa ji <laughs> fonk nga ko te yàgg ngeen ànd ñu tuddee ma élément barte bi noonu la lawee di demaa ah. waaw mm-hmm. mais am ngeen ay relations yu poussé quoi. oui bien sûr parce que politique moo ñu boole waaye dem nañ ba weesu politique. Mm-hmm. dem nañ ba nekk famille quoi parce que dara doxu suñu diggante su ma ko waree jot téléphone dama koy woo su ma waree dem këram damay dem këram. Euh, sans rien donc wàccu nañu politique dinañ waxtaan ci leneen sax loo xamante ni du politique quoi. Mhm. waaw dañuy waxtaan waxtaanu àdduna daf may conseiller ci lépp loo xam ne dama ciy dugg lu ma war a dugg tamit dinaa ko laaj sama xalaat. Mhm. ndax dinaa ko laaj xalaatam mu wax ma ci xalaatam. lu ci baax ma jëfee ko lu ma gis ni tamit warul demee noonu ma bàyyi ko ne la comme ni may dundee ak samay frère rek samay frère et sœurs ma bokk ak ndey ak bàyyi noonu laa dundee ak moom. waaw mhm. ah, mu doon ko koo leen fasante politique moo leen boole mais wees ngeen dix ans dix ans ñu ngi nii ah, mais bokkoo taxawu Dakar. non non man aw ma benn carte membre. bokk benn parti non non mhm. bokk ma benn parti loolu la gars yi di kii des fois di ma ko laaj ñoom dañuy gis turu élément Barth bi rek foog ni élément Barth bi mooy ci défend Barthélémy Dias en tant que tel non non parce que man bi may dugg ci xeex bi c'est Sénégal drapeau bi moo ma taxoon a jóg vert jaune rouge bi moo ma taxoon a jóg défendre ay cause défendre ay euh, principe di gis injustice bi ñuy teg suñu réew ñu jóg xeexal ko ba loolu dab ñu si tour bi dafa ñëw rek après parce que tamit am na tour boo xamante ni yow peut-être doo ko bëgg dugal ci politique bi mm-hmm. parce que politique bi des fois nga dégg ci ay baat yu ñaaw a ñaaw a ñaaw mm-hmm. moo tax sax ma dem ba ne ok grawul naa maintenir tour bi sax wéyee ko ci politique bi quoi mm-hmm. léegi ci loolu la ñuy doxee élément baat c'est pas pour défendre Barthélémy Diaz en tant que tel moom bu nekkul ci bu nekkee ci erreur damay nangu ni ci erreur la nekk su nekkee ci dëgg dañ koy défendre ci dëgg comme ni ñu koy défendre yeneen homme politique yi parce que tey dañu nekk ci Sénégal boo xamante ni réewum démocratie la ku nekk am nga sa xalaat ku nekk am nga sa gis-gis ku nekk am nga sa doxalin te dañoo jël réew mi dénk ko benn nguur nguur gi nekk fi am am ñu ko voteel ci sénégalais yi donc ñun bu ñu amee ñun ci ñun ñuy bokk ci 18 million de sénégalais yooyu noonu ku ci nekk am nga ci sa xalaat boo demee ba gis ni nii ñuy doxalee alal bi ñu leen dénk war nga ci joxe sa xalaat sa participation te opposition tamit dafa baax ci réew kon ñëpp loolu ëmb politique bi. te ñun ñu bokk tey ci benn pàcc moo xamante ni dañ ne dañuy teewal sénégalais yi. Mm-hmm. kon bu ñu gisee ñu teg yenn homme politique yi injustice ak kum ci mën di doon ñun dañuy am taxawaay boobu noonu amul kii sama mag la wala kii fii laa far wala kii déedéet faruma fenn fudul ci Sénégal moo tax ma ne la aw ma carte membre. Mm-hmm. je suis libre damay penser ni nii sama mag mu ne choisir feneen man noonu laa amee droit choisir feneen ndax sama baay moo ko def man. Mm-hmm. moo ma yaree ci loolu ne ma man mii di sa c'était un greffier en chef maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana loolu la def ci man dafa ne ma man mi sax di sa bàyyi fu ma fu ma faree fenn te gisoo ci sa bopp demal nga far feneen ndax loolu mooy démocratie ci réew loolu mooy liberté de pensée mun nga am sa gis-gis ci leneen te teewul ñoo bokk Sénégal gi donc man ci doxalin boobu laay doxee ko léegi yaa ngi ànd ak Barthélémy Dias mu nekk sa waay dina la arrivé yenn saa yi def na ko sudul noonu wala nga ñàkk gis sa bopp ci jëfam nga toog critique ko publiquement na ko warul demee ni non publiquement du ma ko def damay dem ba ci moom parce que am naa accès bi ne nii kat nga defee su ma sañoon nga defee ko nii parce que xam nga tey bokkul am nga mun nga am sa kilifa parce que Bara lu mu doon doon sama kilifa la mag la ci man te am na lu mu dolli ci man ci sama gëm-gëm bi may ñëw ci politique am na lu ma lu ma gëmoon waaye am na lu mu dolli ci man donc tey kilifa gi mu doon mun naa dem ba ci moom am naa accès bi ne ko kat man nii su ma sañoon nga waxee nii su ma sañoon nga jëfee nii. donc du ma taxaw nag di ko ŋàññi publiquement déedéet. Mm-hmm. loolu moom duma ko def. Mm-hmm. mais dernièrement dafa am ay sorties yu ñu bari gis nii dafa malheureuse ci ni ko ñenn ñi jàppee mooy waxuñu sax bi ñuy jàpp Sonko di ko yóbbook yooyu ak génn bi mu génn gars yi ne même bu waxee xalaata mais c'était au mauvais moment ki nga naan sama doomu ndey mu jour biñ ko war a tër ci politique. nga dug nga ñëw mel ne ku koy gën a dugal am na ñu posé une question ni lii lan la ci Bart jublu woon ci koo xam ne foo toog nii sama doomu ndey la dernièrement li xew ci kër may Maïmouna Ndour Faye Sonko yëgul tiñul enquête génnagul mais bi mu ñëwee da ko jiñ Pastef waaw doxalin yooyu mi doxal ci yow koo xam ne tey ji da nga ne lu dul yoon ngay xeex boo gisee nit koo xam ne sa waay la di doxalee noonu est-ce doo gêné wu loolu laa ko jëkk ma ko gisee bi mu su ma la su ma la xamoon nii dangay euh, ngay da dem waxi non du ma la bàyyi nga dem wax wala peut-être soo ma tàgg woon ni lii ngay wax du la bàyyi nga wax ko j'étais j'étais catégorique ci ay ci décision am dama dem ba wax ko donc nit ki nag nit la nit moom yaay am sa position boobu parce que tam baat bi muy dugg ci politique man tàgguwuma man du may dugg man tamit tàgguwuma ko yàllaa ñu boole ci politique bi moom tamit mun na am gis-gisam ne moom nii lay doxalee wala tamit am na lu ko peut-être lu ko metti wala mu gis leneen loo xam ne man xaw ma ko mu réagir réagir boppam parce que magum jëmm la te kilifa la tamit mais nag lu mu ciy réagir ak lu mu ciy wax man am naa tamit sama point de vue te terewul loolu tey bruit boobu am li nga wax noonu euh, euh, pour pour kii ko tënk ko ci loolu noonu bruit bi am mooy jiwoo bu am moom ak doomu ndayam comme ni nga ko waxee Ousmane Sonko wàññiwul dara ci sama position bi ma amoon ca commencement ba ñoom bi ñuy jiboo ba ba ba tey réeroo di am dara wàññeeku ci. ni ma daan jàppalee la président Ousmane Sonko noonu laa koy jàppale ba tey jii nii ci injustice bi ñu koy teg parce que mënu ma dund ci réew mi ñu jël ñuy teg benn opposant boo xamante ni deful benn crime lu dul muy opposé wu ci loo xamante ni ñu ngi koy teg askan bi mu gisu ci boppam mu am droit wax ci. non non non Bart téye ma fenn mais le jii mënatoo ko critiquer publiquement. non alors que yow sa liggéey ak suñu liggéey moo yam ñun mm-hmm. ay am public lañ dañoo war a am liberté de ton. Mm-hmm. maanaam même bu ñu nekkee ay xarit sax. Mm-hmm. mais des fois les politiciens des fois bu ñu xamee ne yow da am kàddu. da lay jëm a peek ba yow. Euh, occuper sa kàddu ba xam ne yow léegi liy jugeeti ci yow du dalati ci seen kaw. est-ce que nekkul ni c'est pas un peu gênant nga mën a dal ci ñeneen ñi alors que. non man man du ma dal ci kenn ci du dal ci kenn ci maanaam loo xamante ni c'est inter c'est personnel man lu ñu ñëpp bokk laay dalee ci kaw xam nga tey li li boole Barthélémy Dias Ousmane Sonko c'est politique man tey xuloowu jàmbur mun naa ne sama yoon nekku si ñoom ñaar bu ñuy xamante tàgg wuñu ma seen seen seen seen kii tamit bi ñu dem bay jiwolo tamit sama yoon nekku si peut-être mun naa wax loolu parce que ñoom ñaar nee naa la léegi bu ñuy xamante tàgguwuñu ma politique moo leen boole man nag ci lenn laay waxee man Macky Sall mii sax nekk ci réew mi nekk suñu président du ma wax ci moom ci wàllum jëm déedéet li ma ko dénk la sama alal la sama impôt bi may fay la am naa droit ma laaj ko ci ma rendre ko ci compte tey Barthélémy Dias bi mu jëlee maire de Dakar maa njëkk a def vidéo ne ko bul am xaaj ak seen bul xàmmee kii Pastef la bokk bul xàmmee kii APR la bokk bul xàmmee xam nga yooyu loolu dama ko def publiquement parce que naa ko conseiller publiquement ci loolu noonu mais loo xamante ni c'est personnel c'est politique moom la moom moo ko moom mais nag loo xamante ni ñun ñëpp a ko bokk loo xamante ni dama ci am pàcc ma jigéen am ci pàcc ñun ñëpp ñu bokk ci am pàcc mun naa ko wax publiquement loo xamante ni tey bu defoon tey bu ñu ne woon Barthélémy Dias détourné na suuf askan bi ma dénoncé ko bu ñu ne woon euh, sàcc na alalu askan bi ba ñu teg suñu bët ma dénoncé ko donc loolu loo xamante ni ñun ñëpp a ko bokk nag Euh, ku ne am na ci sa wàcc position politique am da nga koy respecté non position politique am position politique am la moom la parce que bi muy def déclaration bi tàgguwu ci kenn laaju ma sama xalaat bi muy def euh, bi ngay bi ngay wax nii bu mujj bi bi mu koy wax tamit laajuñ suñu xalaat donc moom moo dem gis am gis-gisu boppam wax ko moo moo xam tax mu def ko nag moom la. bi moom nee nga ko bu doon man la. bien sûr waaye oui parce que moom xam lan la ma wax ci boppam. Hmm. nee na ma yoolaa ci njëkk xalaat. ne ma baa doo ci ma ne ko sonn déedéet du ma sonn parce que man sama conviction du du ma loolu du wàññi dara ci sama conviction. non du loolu moom la engagé sax. moom la du wàññi dara dara dara ci sama conviction li ma li ma waxoon démb man xam na laay bañ euh, Omar. Hmm. dama nekk ndaw ba pare bañ vaar. dama bañ tey li may wax fii nii si plateau bi suba ñu ne ma suba kat yaa démb soo ma ëllëg ñu ne ma yaa waxoon ci plateau takku show bi lii te jëfewoo ko man damay bëgg à chaque fois dañ ma yar ci loolu lu may wax rek lu ma waxoon démb. tey ma taxaw ci te ci loolu laay xeexee suñu dirigeant yi nii maanaam seen wax yi démb mu doon seen jëfinu tey ci ci loolu lañ leen meree ñun jërëjëf macha allah eh, ma Bart waaw euh, waxtaan bi am na solo parce que li mu wax moom man mën naa ko ko nangul parce que dama koy suivre lu bëree bari gis naa ni léeg-léeg booy ñëw ci commentaire <laughs> expliquer ko comprendre nga mais aussi tamit euh, li li may impressionné mooy fi ngay waxeek ñoom da ngay wax ak ñoom ci question yoo xamante bi ay valeurs yoo xamante ne bi mi ngi ci yow te lool tamit ma gëm ko wax dëgg fa yàlla day feeñ à chaque fois ci say vidéo te gis naa say position da dama lay suivre wax dëgg fa yàlla peut-être mënu ma wax ni seetaan naa vidéo yëpp waaye jàpp naa ni li nga def lépp euh, seetaan naa ci li ma seetaan ëpp lu ba seetaanul gis naa taxawaay bi nga xamante ne bi moom nga amee li nga expliqué sànq ci kii am na ay jamono ay booy di wax naan wooy élément Bart fi mu toll nii eh, demal rek kii parce que li ngay def nii defoo defatoo dara mais da ngay baab nit ñi pour continuer di am ay view ak affaire yooyu te xam naa ni nekkoo ci angle boobu parce que damay wax ne bon peut-être ñuy comprendre quoi xam naa ni kuy assumer say mbir la bon nga fan yi passé nga def kii bu am solo boo xamante ne bi bi la booy bi bindalee commentaire ne la élément Bart looy wax ci lii da ko waxoon naa ko ma gis vidéo nanga nga ko tegal vidéo sax moo ko tontu mooy vidéo bi nga xamante ni bi ci ngay wax yu sew yi nga xam ni commencé nga ko gis te mën na jëm foo xam ne du neex euh, loolu nga xamante ni bi moom nga gisoon est-ce que comme yow jege nga ñoom Barthélemy ak yooyu est-ce que jotoon nga ci waxtaan ak ñoom yu sew yooyu laataan nga ci doon def vidéo pour ñu éviter yenn yi di am parce que opposition bi waruñu xeex ci seen biir. voilà loolu tax sax saa euh, euh, loolu tax man ma gën téye sama bopp ci bañ a am carte membre parti parce que gis nga carte membre parti boo ko amee dañ lay tënk ci yenn bu bu xeex amee sax ñu ne demal xeex yi bu yi amee ñu ne demal mais nag man damay préféré di dem ak solo di dem ak sama xalaat euh, di di jël nag ci ñenn ñi comme ku mel ni yow wala ku mel ni ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi joxe seen xalaat ci réew mi may am exemple ci ñoom moo tax tey bu ma gisee loolu am ma teel a jël position comme ni ma ko defee ne leen lii nii rafetul ci suñu réew déjà dañoo nekk ci Sénégal wax xam ne ñu ñëpp ay sénégalais lañu kenn ëppale wu fi kenn ku nekk nag am nga droit am sa xalaat am ku nekk am nga euh, droit wute sa ngeen wute gis-gis waaye bu leen tax ngeen bañante bu mu tax wax yi ñaaw bu mu tax sànnante xeer yi parce que tey am na ci ñoo xamante ni tey yéen li ngeen di def nii mu ngi dal ci ñeneen ñoo xamante seen yoon nekkul ci politique mm-hmm. parce que li commencé woon ca Grand Yoff ci saa si laa def bi laa njëkkee def euh, communication bi parce que instant pense moom taaloon micro may ak moom maanaam ko xoolal lii eh, ñaaw na loolu ci saa si laa réagir ne na responsable yi jóg muy responsable Pastef di responsable taxaw dañu jóg wax ak seen militants yi ne leen kat lii politique la te politique affaire de gentleman la adversité la du animosité nañu jóg gaaw balaa euh, lii raam di dugg ci ñag bi parce que nii laa ko waxoon dama ne leen parce que bu ñu ko bàyyee ba mu dem ba mu law bu ñu demee tey ci élection yi fu ñu daje dinañ xeex te looloo xew ca looloo xew loolu dama ko artu woon ma defaat ci émission sax waxaat ko moo tax bi ma waaji laajee mhm. ma ne ko kat man waxoon naa ci lii mhm. soññoon naa sam euh, responsable yi pour ñu jóg artu seeni i wax ak ñoom comme ni ñu defee ay conférence de presse nga taxaw wax ak seen militants ne leen bu leen xeex bu leen xuloo parce que Sénégal tollatul foofu benn adversaire la ñu am muy muy nguur gi fi nekk adver man man loolu mooy sama philosophie quoi mhm. ñoom bu ñu ko defee rek duñ sonn bu ñu defee ni ki fi nekk tey ak ñi mu àndal ak ñi taq ci ñoom ñooy adversaires yi kon tey du duñ amultul lu ñuy indi tey mais dafa dem am discours bi moo commencé tamit mm-hmm. ci discours bi la commencé. discours bi moo moo sévère trop. moo moo dem nag ba këpp nag ci ci ci ci militants yi. mu dem ba commencé di indi haine da ngay taxaw kenn sax mu naan la du tax nga far fii kii naan la du tax nga far fii. te nga xamante ni démocratiquement te man dama dëkk ci kër goo xamante ni démocratie la kii far na fi kii far na diw man sama mag bi ma bokkal ndey ak mm-hmm. ay compétence moo ko yóbbu muy liggéeyee DER. DER bu Macky Sall bi du politicien nag. Mm-hmm. mais tey ça li ma def sama xel bi dama ne intérêt commun moo ma gënal intérêt personnel tey su fekkoon intérêt personnel rek dama naan ko sama mag bi comme que mu ngi fayeeku fële ne. mais bàyyil ma jàppale ko kon wala bàyyil ma jàppale nguur gi pour mu ceebam di gën a niin. su ceebam niinee sama ceeb niin. mais defuma ko dama ne intérêt commun bi moo gën bu baaxee Sénégal bu baaxee. day baax ci man. Mm-hmm. baax ci yow baax ci keneen ak keneen la ñu war a xeex mooy loo xamante ni warul baax ci benn boor bi kese. Mm-hmm. donc loolu bu ñu ko defee intérêt commun kon yaakaar naa euh, opposition bi dinañ mën a juboo te xam ni dañu war a dem ci ay élection nañu xeex loolu ba pare parce que tey ñu ngi nii di ñu bëgg nelawal ñii di ñëw naan ñun dañuy pusaat ay élection ak ñii di bëgg nelawal sénégalais yi ay waa U80 nga baal ma saa xam xam nga waa U80 si football di nga dégg ñu naan la U20 <laughs> ak U16 ah. waaw ba gi démb waa U80 ñoom ngeen tuddee borom grand boobu ñoom la waaw mooy U80 <laughs> ñoom ñoo ñëw tey waaw les moins de 80 ah. ans ñoo ñëw depuis 1960 ñu ngi fi ah. téye suñu réew mi bëgg koo ŋànk mm-hmm. di lëndëmal askan bi di ah. lëndëmal xelu nit ñi <laughs> léegi nag tey ñun ñu war a xeex loolu noonu ñu ñu bëgg di xeexal suñu biir waaw ba di may nag porox ndollu sax gars yi ñi naan la dañu jéem a ay élection ñoo xamante ni réew mi defar na leen lu ne mm-hmm. ñoom mosuñu defal dara réew mi tey lu leen réew mi defal yëpp doo romb sax ñu ne la am na benn entreprise boo xamante ni def nañ fa mille jeune ñu ngi liggéey di fayeeku salaire bu baax. waaw de de laa croix sax laa ko tuddee. javel yaa ngi fàttaliku javel laa croix boobu man laa ko tuddee parce que non man ñun ñun mënutuñu mënuñ instant bi dëkk baa ngi am jàmm nee na sénégalais yi. dañoo bëgg dem voté ci jàmm. waaw man ko yan sénégalais yi la yónni. waaw ñun ñun de bokkuñu si. waaw réew maa ngi ci jàmm instant yi ñaa ngi campagne ci jàmm. waaw. mu ngi noonu. Hmm. nit ñaa ngi campagne ci jàmm instant bi pare nañ mais ñun pare nañ pour dem voter le 24 mars. Ah pare nañu ah. instant bii nii dara desatu ci nañ ñu dimbali rek te may conseiller tamit waa conseil constitutionnel xam naa ne nag sama conseil gàtt na ci ñoom lool. ak waa cour suprême ak président Macky Sall fi ñu hmm. di ñaan rek. nañ ñu bu bu ñu déglu waa U80 yi 1 pour cent lañ ci réew mi bu ko jàpp nii maanaam ñu dem ci élection yi <laughs> waaw nañu bàyyi ga candidat yaa ngi campagne euh, ci ci jàmm ñu ngi wax ak askan bi in incha allah le 24 mars sénégalais yi tànn Sénégal mën a dépasser yenn yi nii parce que yii yëpp ñàkk élection rek moo ko waral sénégalais yoo dem ba frustré moo tax parti yi sax dem dañoo nam dañoo namm kees gi moo tax sax parti xam xamaana ñu dem ñu def seen biir c'est man bon man bon gis naa xam nga yow yàlla dafa def yow fi mu toll nii man pour man situation politique bi yow ci ñi ci gën a sonn nga bokk parce que da nga am ci ñaari côté yëpp ay soppe muy problème mu Barthélemy bi ak euh, Ousmane Sonko yow fi nga ci nekk kiiwul comprendre nga est-ce que loolu parce que Barth wax na la ko sànq nee na la bi mu waxee léegi ba noppi yow la ci xalaat. comprendre nga est-ce que yow yaakaaroo ni tamit parce que tamit beneen saa nit day nekk fenn peut-être mu xeet boppam ci niveau bu mu toll. Mm-hmm. te peut-être am na loo xam ne moom war na ko mën a régler. Mm-hmm. est-ce que yow fi mu toll nii li ñuy wax pour jéem a régler situation bi est-ce que nga ci dara. mais bien sûr parce que loolu war nga ci mën jéem dara parce que yow yaa ngi woon ci ñaar yëpp te ñëpp. bien sûr xam nga luy luy régler loolu saa. waaw mooy sama vidéo yi ma daan def. waaw ci loolu li ma daan def avant moom laay continuer ba tey. Hmm. même sax euh, à part Barthélémy Dias président Ousmane Sonko ci boppam. Ah. jour dafa ma woo jotuma. Hmm. fa far ma raté appel hmm. moom tamit bi mu jógee affaire bi <laughs> dafa am ku mu woo ne ko sama waa laa xalaat ci ci mbir mi. ne moom ne moom moom laa njëkk xalaat quoi parce que ci dina dina metti loolu ci moom. après ci la ma laa déggante ak Bentaleb Sow sax mu ne ma président mi ngi la doon woo ma ne ko ah man dama raté appel am mais mu ne ma Bentaleb ne ma dafa nekk ci am fu mu nekk nii après sax dina la rappeler quoi ma ne ko waaw d' mais loolu noonu lu ma ciy jëlee mooy sax encore une fois damay indiwaat intérêt Sénégal bi tegaat ko sama wet su ma ko defee rek du ma sonn su ma gëmee ni tey Sénégal laa yéene mu baax damay dem sax ba ba naan seen xuloo bi sax bu fekkee ni mooy defar Sénégal nañ gën a xuloo bokk nekkatoo woon à l'aise parce que da nga demoon ba benn moment sax da nga da nga da nga désactiver woon sa commentaire yi parce que nit yi ni niñ la doon waxee ci fois xam nga mën na la bett ah. xam nga lu la bett mën la mais boo demee ba jël recul nag après da ngay toogaat waaw chaque jour euh, xam nga looy gën di màgg waykat bi way na ko sa xel di gën di di paañ waaw léegi man nag bi ma toogee ma ne non comme que dama ne man Sénégal ma tax a jóg mais jarul may kii xaaral ma yeggali ci lu ma doon dox xool ba xam ma xool ndax Sénégalais yi dinañ ma ci fekk si am déet ma yegali li ma doon def gisaat yeneen commentaire yu positif gars naan ma non continuer ci li ngay def nii parce que tamit da xool à chaque xool majorité bi lay bi lay waxal ak ci mbedd bi li li ngay daje ñi ngay ñi ngay dajeel ak ñiy wax ak yow parce que damay dem ci mbedd bi nit ñi naan la non ci li nga nekkoon bu ko bàyyi li doon def nii bu ko bàyyi même ba ci biir parti yi sax ñaari parti yooyu am euh, problème seen responsable lañ may woonaan naan ma non continuer li ngay def parce que tamit tey euh, Bart am na loo xamante ni moomu ko dañ ko koo dénk man su ma wanee réalisation Barth ñun dañ koy ñaanal mu am ndam parce que loolu lañ ko dénk dañ ko dénk comme encore une fois lu ñu bokk jox ko alalu askan bi mu war ko doxal ci yoon kon tey su ko defee dañ ko war a wane comme ni mu ko daan defee bu njëkk ba injustice boobu ñuy teg le président Ousmane Sonko wàññiwul yotaa wàññeeku ma ci yotaa ma ma ko ciy jàppale ba ci tey jii nii euh, ba jigéen man maa est-ce que xam nga man maa njëkk a taxaw defendre le président Ousmane Sonko ci problème Adji Sarr maa ci njëkk a def vidéo ba affaire bi di am boobu pourtant maa ngi sës rëq ci Barthélémy Diaz tàgguwuma ci kenn ma ko nekkoon diw ndax ma dem jàppale ko wala dara sama pensée laa am sama xalaat ne ñu ngi koy teg injustice te lii ñu koy def nii du yoon ma jug defendre ko te laajuma ci kenn ci noonu laa doon wéyee ba tey jii nii fi ma toog nii. léegi yow Barthélémy sa xarit ah, gu Ousmane Sonko. gis naa chaque jour yaa ngi koy défendre léegi Barthélemy Diaz ak euh, Ousmane Sonko neexootuñu léegi yow naka ngay def pour mën di supporter kii di supporter kii parce que ñoom ñaar ñoom ñaar politique moo leen boole du candidat. parfois du la ci parce que euh, teel nañ teel teel teel naa ko wan ni nag ku am fula laa ku am fayda laa waaw kenn tënku ma si samay pensées sànq Omar mu ngi koy wax ndax Barth tënku la ci déedéet xam nga la laa jàppee affaire bi comme sa soxna rek. sa soxna tey mun ngeen a meroo mais boo leen demee ba ci biti bu ko wane suturaal ko donc man su ma soxna su ma ko meree damay bàyyi ba ñu wéet ma wax ko li ma xalaat ak sama dëgg noonu laa mel ak moom parce que am na fu ñu toll tamit euh, nit ki di nga dem ba nga xamante ni dafay toll ci yow day mel ni mooy mooy raw sax sa mag wala dara Barth loolu def na ko yàlla def na ko tey bi ma jaal bi ma bi ma ñàkkee sama papa ñëw na taxawu ma ak ci yeneen ak yeneen ma taxawu ko. président Ousmane Sonko nag kooku daa dafa bokk ci man xam lu tax sama kër la jàngee alxuraan sama mag moo ko jàngal alxuraan alxuraan bi nekk ci président Ousmane Sonko nii sama mag def ci moom. Eh, loolu du hasard quoi man bi ma ko gisee ba sopp ko ba jàppale ko ci ci inju ba ko ci injustice ñu ko doon teg dama woon du neen quoi. amul a jóg. après ci ngay soog a découvrir loolu. voilà après nag ci la ah, affaire bi doog a ñëw. Ah, ah, voilà ci la bi ma kañ laa ko bi ñu ko jàppee ba mu génn. mooy ci première arrestation boobu bi mu génnee dem ndar ca daara ja la dem ma ne ah président lu muy wut fii ci laa woote sama mbokk yi ñu ne man non président fii la jàngee Zeynul Abidin moo ko jàngal après bi mu ñibbisee nag man ci laa ko seeti laaj ko ma ne ko kon yow euh, président Zeynul moo la jàngal mu ne ma waaw ma ne ko Zeynul sama mag la ci la ma nuyoo ñaari loxo ne ma yow kon sama sëriñ nga donc mu am am na lien ci sama diggante ak moom waaye nag loolu yëpp encore une fois man lu xam nga man lan mooy sama tànk mooy wax ci lu baax man tey ku ma ciy dégg may wax lu bon ci benn boor bi lu mu may wax munu ma tey munu mun man du man maay jëm bi nga xamante ni damay taxaw di wax publiquement ci Ousmane Sonko loo xamante ni c'est négatif du man maay jëmm bi nga xam damay taxaw di wax ci Barthélémy Dias lu négatif déedéet. Ah, waaw non man man nag dama teeloon a wax loolu. Mm. merci beaucoup laaj nga ma lu am solo. Mm. bi Barth taxawee. xam nga loolu moo lay wan ni démocratie bi muy dundee man. bi mu taxawee ne xalifa mooy candidat am dama dem ba ci këram ma ne ko Barth yow doo candidat mu ne ma noonoo ma ne ko d'accord kon man nag sama candidat président Ousmane Sonko la moom laay jàppale ba taxaw fësal ko nag ma ne aw ma ci plan A aw ma ci plan Z man président Ousmane Sonko mooy sama candidat Barthélémy Dias taxaw mooy euh, mooy kii am. Ah, ñëw na léegi <laughs> waaw loolu saa. <laughs> loolu dama ci waxoon xam nga dama dama defoon sama vidéo ma ne. ni ma amee sama pensée. ni ma amee sama xalaat. Uh-huh. ba Barthélémy Dias tënku ma te ni ma ak ni ma ko jegee tënku ma ni. ni dangay war a kii nga war a àndal par force wala kii nga war a àndal. noonu tamit laa amee sama pensée ni nii tey. jamono jii. Mm. président Ousmane Sonko du candidat. sénégalais yi laay bàyyi ñu choisiral seen bopp. sànq ci coulisses yi eh, sooy mu ma laaj naa ma ndax yaa ngi campagne ma ne ko non campagne woon nag maa ngi toog jàpp sama njàmbur <laughs> di déglu sénégalais yi ku ñu tànn uh-huh. baax na mais man daal kenn laay mooy sama adversaire muy nguur gi ak li mu taqal maanaam moom amadu moom mooy mag <laughs> euh, euh, euh, Macky Macky eh, eh, Macky amadu mooy mag yi bu ah. jon mooy Macky Aly Ngouille Ndiaye mooy Macky mm. Mame Boye Diao ñooy Macky ñooñu daal moom mm-hmm. yàlla ñu yàlla rek may jàmm ak ñoom mm-hmm. ba ñu dem rek abal ñu si njëkk ak teraanga def nañ fi douze ans yoo xamante ni mm-hmm. ba ba léegi may ñëw ma dégg ci rajo bi xaw ma am na ku doon wax Mamou di wax lu doy waar dafa ñaari kàddu saa yu ma yu ma yu yu tëj sama bopp bi. muy Mamour Cissé ak Yakham mbay Yakham Mbaye bi mu toogee président Macky Sall naan ko est-ce que sàmm nga est-ce que couvrir nga sa njaboot ba du ñu tiit. waaw Mamour ñëw tey ne ay bu ñàkkee nguur gi. Hmm. kon ñoom dañu dem ba nga xamante ne dañu obsédé ci nguur gi wala def nañu peut-être loo xamante ni bëgguñu fee bëgguñu ko fee bàyyi. waaye. te xoolal Mamour Cissé. bi may ñëw xam nga Mamour Cissé. Mamour Cissé dernier bi ñuy jàmmaarloog Macky Sall. oui ak Ablaye Wade. moo yoroon kees ga. kees ga doon ki keesu xaalis ga. mu ngi noonu benn moo nekkoon ci Ablaye Wade. kon kon tey mooy ñëwaat naan bu ñàkkee. nguur bu ñàkkee nguur gi. xoolal système bi. système baa encore une fois. moom laay waxaat rek ci suñu maam yi encore. c'est que ñooñu. xam nga mooy nga ne lan. U80 euh, xam nga ñooñu xam nga mooy ñan. bi ñu bi ñu demee si seen genre tee débat boobu noonu seen genre mbootaay boobu bi ñu fa demee ba toog mu di naxante seen biir mooy genre paa yooyu nga xamante ni euh, damay fàttali benn paa bi toogaloon benn xale benn booy. paa bi ne ko waaye booy man samay jamono day waay gis naa jaan boo xamante ni quatre-vingt mille kilomètres la. booy bi tamit xam nga nante la ñun tamit xam nga nante la ñun ñooy booy dañoo yeewu léegi booy bi ne ko li ma gis moo gën a li nga gis yoon nen laa gis mu këpp benn nen toju si paa bi tourné ne ko mais nag booy yi nag yow wàññi li ngay wax li ngay wax ni xam nga dëppoowul ak dëgg booy bi ne ko waaw mais da ngay wàññi jaan bi ma toj nen yi donc ñooñu ci loolu la ñu booy kii yi nag paa yooyu noonu yu 80 yooyu ci maayinu booy yi la bëgg ñun di ñu nax ba tey te ñun dañu xam nañ leen di wax ma jàkkaarloo caméra yi wax ko ne ñoom li ñu am tey ñu paacoo ko ñun dañ koo bëgg pencoo pour ñu ñëpp am ah. ñoom ñoom seen drap yi ñuy sol seen i seeni kër yu rafet yam yam loolu Sénégal yamul foofu Sénégal dafa yam ci banlieue bi dafa yam ci au fin fond ci Sénégal ci ci àll bi ci suñu ay euh, euh, sœur yoo xamante ni ñu ngi wasin ci saret ba tey wala di wasin di ñàkk di ñàkk seen bakkan ci au vingt et unième siècle banlieue bii nga gis suñu ay moroom yu yeewu war jël mille francs jox ko seen papa ak seen yaay yoo xam ne retraité nañ mu dëgër loolu looloo indi haine bi léegi ñoom nag ñu bëgg di saa su ne di lëndëmal xelu askan bi nañ yërëm nit ñi moo tax ma demaat sax ba waxaat conseil constitutionnel in euh, ne leen ngir yàlla fi ko jàpp baax na nañ dem ci ay élection te jëlee fi li fi nekk indiwaat fi lu baax. waaw bon di leen gërëm di leen sant di wax ni fii moom sama télé la dama leen yàgg dama yàgg euh, suivre Walf yàgg suivre Solution TV ba si sax bi ñu leen di teg injustice yi man maa kees boobu noonu ngeen tegoon fii maa njëkk a def vidéo ne leen. def leen kees ci kii bi ci lendemain bi laa gis ngeen def kees xaw ma da ngeen dégg affaire bi wala dafa tombé ma ne leen def leen kees ku romb def ci bi mujj bi man tamit laa taxawaat ne leen defaat leen fa kees sax man sama salaire sax amaana ma jël ñëw def am am lu ma ci sàkk ñëw def ci parce que bugguma man kuy teg injustice te beneen bi ça fu terminer ko rek mooy li yi di wax naan ay vues vues ak yooyu non man vues ak yooyu wallaahi intéressé wu ma parce que fayu ma am ñu bëri naan ma créer compte ma ne ko du ma ko def man damay def rek lenn loo xamante ni sama xalaat laa bëgg a joxe parce que man damay bàyyi sama liggéey politique fayu ma. waaw mais da nga a yaatal. waaw gën a la yaatal. waaw politique fayu lépp quoi yow. politique man fayu ma. Hmm. wéeru ma ci politique maanaam comme ni gars yi def politique métier. man politique sama métier ba damay liggéey ci benn boîte boo xamante ni euh, kii la privé la ci benn banque bu nekk ci ci ci fii ci réew mi hmm. maa ngi ciy bay sama waar des fois bu politique amee nii wala bu. événement amee ma jël ay jour sax dafa may jaral ma jël ay jour bu ñu ma ciy dagg sax ñu dagg ma ci way sama congé ma jug na dem euh, teewal sama réew loolu mooy sama xalaat loolu mooy sama gis-gis di ñaanal Sénégal jàmm encore une fois ñoo ko bokk yàlla na Sénégal am ndam quoi ah, jaajëf élément Barta di ko jaajëfal bu baax di ko gërëm nag waxtaan bi neex na macha allah kon euh, di la gërëm bu baax ajaratu kàddu gaa ngi noonu. mi ngi noonu yu mel nii la ñu soxla xel mais pas ay saaga ay xaste loolu du développer réew. kon na ci sa yeneen jeunes yi jàng ni yow merci beaucoup élément Barth